asalaamaaleykum waa àddina waa Sénégal ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare fii ci seenu Mouhalim Sport TV ñoo ngi leen di bëgg bu baax a baax ci kanam tuuti nag information sport yi ñëw waaye lii nag dafa nekk sport boo xamante ne àddina bépp dañu koy xaar mu war a am tey ñu fàttali leen nag tey jii ñoo ngi am combat bu rëy rëy ci diggante Mama lemin ak Gargada Gargada nag moom nekk mbërum làmb waaye nekk mbër moo xamante ci ni àddina bépp ñu ngi koy xaar tey jii nii mu war a bëre ak ki nga xamante ci ni moo di Mama Lamine moom it ki nga xamante ni àddina bépp ñoo ngi koy bàyyi xel kon nag tey jii nii làmb ju rëy ko gis ci diggante Mama Lamine ak Gargada ndax Gargada ku ko xam-xam ne Modou Lo moom rek lay jàngal bëri te it moom Modou yàgg nañu ànd te it moom xam ngeen ne képp ku dëkk parcelle rek di nga xam ne gërgëda ndaanaan la te it Modou yàgg na ko indi ci làmb kon nag kookee di gërgëda ndaanaan la ci làmb àddina bépp xam nañu ni làmb ju mu mos a am du ko caaxaani te it ku ko xam-xam ne xeexkat la te it barekat la moom ci digganteem ak ki nga xamante ci ni moo di Mama Lamine mi nga xamante ci ni moom làmb rek la ñoo ko xamee ak bëre bu neex ak combat bu neex waaye it yaru ga kon nag tey jii waa Sénégal gépp ñoo ngi xaar waa diaspora bi ñëpp di xaar combat bu rëy war a dox ci diggante gërgëda ak Mama Lamine Mama nag nee na ko bu dee ñeme nga taxaw ma daal la jël bu rëy garga daan ne ko yow bu dee ñamaga na nga taxaw kon nag combat booba xeex dana ci am ci diggante moom Mama Lamine ak ki nga xamante ni moo di Garga da mu nekk làmb ju rëy ju àddina bépp di xaar kon nag tey jii ku bëgg làmb ji neex rek na nga dal di seetaan combat bii di ak Garga da ndax ñoom ñaar kat xam ngeen ne ñoo ngi tëkkonte lool te ñoom ñaar ñëpp dañoo ñemente muy ci diggante kii nga xamante ci ni moo di Garga da ak ki nga xamante ci ni moo di Mama Lamine làmb ji nag tey jii la muy la wen demi kon xam ngeen ne tey jii la àddina bépp ñaa ngi koy xaar moo xam Sénégal la moo xam yeneen réew yi sax dañu ko yàkkamti combat bu rëy rëy bu àddina bépp di xaar war a dox ci diggante Mama Lamine ak Gargada ñoom ñaar ñëpp nag tëkkonte bi metti na lool Mama Lamine nee na ko yow boobu bañ ne ba la wen ngay xam ne li nga xamante ci ni moo di làmb ji dama ko bëgg te it maa la ko gën a bëgg moom Gargada ne ko boo ñemee taxawal ñëw xeex ba naaw Mama Lamine ne ko loo indi rek man danaa ci bëri yow moom Gargada ne ko kon nag yaa ko tere neex kon nag joojee làmb tey ji lay doon bu ñu demee daal ba 18 yi jàpp na h moom waaye bu ñu demee nag ba 20h da ngeen xam làmb ji kan moo ko moom waaye lépp lu waaye doon jii nii di nga ko weddi ndax ñoom ñaar ñëpp dañoo ñemente mu nekk ko combat boo xamante ne def nañ ci jàngat yu ne waaye it bu leen fàtte nag ki nga xamante ci ni moo di gargada moom ku ko xam-xam ci laa làmb xam ne xeexkat la te it bërekat la moom maam la mi nit ku ko xam-xam ne bërikat la tey du daw kenn moom moo ko daa wax tey loola dana ko jëfe kon nag combat boobu tey jii xamuñu ko tey daw nayet dana dox ci diggante moom gargada nee na ko boo taxawee dinaa fekk si boo ñëwut ma jël si la waaye nee na ko boo ñëwee ñu dajee moom maama limin ne ko du ma xaar nga may woo tey du ma la xaarit yow ma lay woo kon nag li gën a wér te moo di arbitre bu ne prib rek songante dina am seen diggante xeex bu métti kon nag tey jii ne combat yi ñu doon xaar yëpp du neex tey jii la ñuy am combat bi gën a neex ci àddina bi muy Mama Lamine ak Garga daal ñoom ñaar daal tey jii ni la ñu xam kan moo ci dàq bëri ci seen diggante ndax ñoom ñaar ñëpp tëkkonte bi métti lool jërë ngeen jëf waaye nag bu leen fàttee abonné ci seen bii ndax kat sport yi ñu ngi ñëw ci kanam trop revue de presse baa ngi ñëw jërë ngeen jëf ak beneen information